حمدا لمن يفعل كل ما أراد بقوله كن فيكون في المراد Amsatu Mbàkke rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu li waral sama teewaay fii de mooy ku néew doole rek te yaakaar sëñ Tuubaa ñu war ko dimbale ndax ku bàyyi ndeyam bàyyi bàyyam ñëw ci dëkk sëñ Tuubaa bi dañ ko war a jàppale tam na ci dëgg nag ñu bañ ko waxañ dëgg ndax sëñ Saliou woon na toon fii fayub xaysam may ko représentant ba nekkoon Dakar di Ibrahima Cissé boole ko son bu Cissé mu won ko pàkk ba Ibrahima Cissé faatoo doom ji ñu wax Mahfouz Cissé jënd ko sëñ Modou Mahfous moo ko miraas jaay ko ko 3 millions 500 ko jaayee 3 millions 500 mu daane li fi nekkoon di ko tabax ba àgg ba mu raase ne xam ne Touba benn titre foncier la sëñ Touba moo koy def police ak gendarmerie ñoon newul ci suuf ay sapeur la ñu war doon di àtte waaye nag euh, ñu ñëw ci yëg ci tabax di wàcc nag moom man maa ngi koy doog a gis ne pëlëkëlër moo leen ko digal ku wax man ali siré njaay kër goo xam ne atte wuñ ko yoroo benn kayit ñëw di ko daanem ak ak ak jaay doole la léegi laa doon woo Moustahine ngir sëñ sëñ Mountakha dépp ndax moy suñu kilifa ñun ñëpp jëf ji damaa bëgg mu leer ñëpp ni jëf ji juuna la ju tegewul ci yoon bañu ay nag moo tax waaye mën naa fi andi am mbooloo moo xam ne sàndarma bi duñu leen mën a tus waaye duma ko def ndax sëñ Abdou leen fi andi woon ngir ngir ñu ñu ñu ñu xeex lu bon li waaw ñàkk orma yi Sëñ Tuubaa ji mel na ñu ngi koy ñàkkee fi mu toll ndax ñoom di leen fi indi pour loolu rek taxoon terem tux terem naan ak yu niroog ñoom ba pëlëkale toogee njëriñ nag di joxe ndigal loo xam ne amu ci droit amu ci sañ-sañ te moom ci boppam moo wax ni ñoom ñoo wax ni Tuubaa amuñu compétence àtte ko wax avocat bi ni ko dañ leen di waay weeloo di renvoyé bañ ko sonn bàyyi kon nag wër te a joxe ndigal di di di di di toj gi. tey ma ko gis ne daam ko ci tax kooku ne day sama rak duma ko weer duma yàq dara waaye daal kii moom dama bëgg ñu xam ne moom moom ci lu cëng sëñ Saliou Mayane Baye Baye Fatou mu jënd ma tabax ba mu raase am na seet village bu ne fii nag bu dëng dañ caa njaay tudd moo lëkkaloog ñeen ñi def yenn yi kooku nag dañ ko fee war a jëlee ku mel ni moom nañ ko fee war a jëlee gendarme yi nga xam ne dañ leen digal rek ñuy def xaj na tooñ waaye ka leen digal def itam war nañu fee jëlee ka leen ka di digal ñuy def war nañu fee jëlee waaw ñoom seen droit lañ def am nañ ci ndigal ndax bu la see kilifa digal da war def lam la digal waaye nag toj kërug jàmbur wii see ñëwut dara ñëwut ku ko defoon ku lu am tënk ci kaso bi ngay fanaan dama dama damaa ñëw yem ci nii rek sëñ Fall mi fi newoon di ko taxawu borom daane Italie lii may wax tam Thierno Ndiaye ma kii eh, eh, eh, soñ bu dem na police dem na gendarmerie leeral ko ni moom la sëñ bi yónnoon jox kër gi sëñ Mahfouz mi raasoon dem na leeral man nag sëñ Xalilum sëñ Fall moomu ci dugal di xaritu yi moom kër gi ni ma jàppale ma ci ba ma seetee leer moo tax ma taxaw ci taxawaay bi waaye man sama yoon ñëw ci waaye nag gannaaw fan ji doon da toj kër dañ ko ñemee toj ay ordre dañ ñu wàcc toj nañ toj buñ tojee ma andi nit ñu ko toj moom toj ah déedéet ordre nañ ko isin nañ ko isin ah dañ ko bëgg ñu wàcc wàcc ordre toj tey bisimilah nañ isin ba escadron bi yëpp ñu isin toj ba xam lii dama bett ma neexoon andi fi musiba leen te du ma ko def dama am kilifa sëñ Muntaxa woo naa mu sañ léegi ma nga ñëm njëriñ sëñ Muntaxa wax naa ko bu ko defee ni ko ñuy wax Ali Siré Ndiaye la Ali moo joxe ndigal te wër ta jëlegu sëñ bi joxe ndigal ci dëkk bi di tojlu ki joxe ndigal amul dëgg ñi ñëw di toj am ñëwuñ ci dëgg waaw mu jeex taamu leen seen groupe Mouhalim Info ak sunu ay mbooleem plateforme Mouhalim TV mooy sunu chaîne YouTube lépp luy information générale religion politique culture société Mouhalim Info moo leen koy traiteel ci anam yu fiable leer na wóor na boole ko gaaw na l'information sur sur Mouhalim TV ba tey mën ngeen abone sunu page Facebook ngir lépp luy information waaye tamit Mouhalim moo ngi TikTok ngir lépp lu jëm seen ay information da ngeen koy am si sunu mbooleem plateforme saa su ne